leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam bi yaakaar ne suñuy nuyu dina fekk ci jàmm waaye yaakaar naa ne ñii nekkuñ ci jàmm li waral situation bi mooy Expresso Sénégal benn directeur bu xëy rek mu ne day toroxal doomu aadama yi Expresso Sénégal ci jamono yële directeur bi jël na nit ñëpp yóbbu leen sali mu ne ñu pour ñu noos ñu lekk naan fanaan fa hôtel bi gën a cher ñu toogaat ay fan rek mu ne non kër gi dafa kër gi mi ngi ci ay difficulté gars yi ne ko d'accord kër gi dafa nekk ay difficulté léegi jox ñu documents yi parce que ñun ñun duñu ay duñu ay luxuskat jox ñu documents yi ñu xool fan nga ko teg mu ne déedéet du joxe documents yi ñu toog benn fan mu ne leen euh, bii de si waxtaan bi moom foog ngeen joxe solution gars yi ne ko naka la ñuy joxe solution xanaa ñun ay sëriñ lañ wala dañuy li saxaar ne ko ban solution lañ mën a génne yow joxoo ñu état finance yi mënuñu analyser compte yi mënuñu la wax fan la problème bi nekk nga ne nañ génn solution yow da ñoo bëgg a tapas nekkate tapas bi nekk dafa buggoon dem inspection mu defar PV defar PVM ba mu mat mu dem inspection yóbbu ko foofu bi mu demee inspection yóbbu ko inspecteur bi ñëw waxtaan ak ñoom ba pare bi mu waxtaaneek ba ñoom ba pare defaat beneen waxtaan ci beneen waxtaan bi mu ne leen da ngeen di dem départ euh, départ négocier ñoom ci réunion boobu délégué yaakaar nañ ne ñii de d'accord nañu ñu toog ba ci kanam ñu ne ñu ñëwaat ci benn réunion ñu ñoom génn nañ ci loolu parce que mënuñu ko gars nag ne leen loolu dafa métti dafa métti ñu dem def benn recours ci fële direction du travail comme xam nañ ne recours boobu dafa suspensif ci ci première première procédure bi ñu ne xaaral ñu profito ci le fait que nit ñi ñëwoon sama bureau ñu ne noo lii lañ ma def wala lee lañ ma def alors que vidéo yi ñu ngi fi gis nañ ko muy woo muy woo mbooloo mi woo na yor nañ ko te te bureau bi fii amul fenn fu tëju bureau yi yëpp tijjeeku koo xamante ni nee na ku ma bëgg wax wax ak man na nga ñëw sama bureau loolu leer na nañ bureau amul serrure leer na nañ jaay doole lañ fi gis loo xamante ni nii kenn xamul fan la fan lañ ko teg ñi ngi woo nag président de la république ñi ngi woo ministre des télécoms ñi ngi woo le directeur de la RTP pour ñu xamal ñu ño ndax ñun su ñu dëkk lañ nekk wala fenaan lañ nekk parce qu'on a vraiment besoin de voir nos autorités gis nañ fi suñu ay forces vives ci ci ci dëkk bi ñi ngi fii taxaw te dinañ jël parole on a besoin que nos autorités suñu autorités yi taxawee noonu suñu wet loolu mooy situation donc pour waaw maanaam maanaam maanaam amul quoi. su fekkee dafa am ay difficulté économique génneel documents yi ñu xool ko naka nga mën a demee ci inspecteur bi ne dama am problème inspecteur bi ah danga am problème ah ok kaay kaay ñu xool noonu la ñuy def noonu la ñuy lijjantee réew mi. man mën naa créer sama entreprise xool na gars yi bëgg neexuñ ma ma ne leen noo daa ngi difficulté économique amul benn support amul benn document suñ la laajee document bi nga ne doo ko génne. après nga ne gars yi nañu génne les solution ban dëkk lañ ne c'est pas possible loolu mënul nekk mënul nekk. maanaam dafa am ñeneen ay liggéeykat loolu suñu njort mënu cee jóg parce que dañu gis ay jëfin dañu gis ay sénégalais yoo xamante ne nii dañ leen jëlee yóbbu leen frigo dugal indi ay indi indi indi indi soudanais loolu suñu xel mënu cee ñàkk tey. koo xamante ni bëggoo affaire bi leer mais jox ñu document yi génneel document yi ñu xool lan la pourquoi génne woo document yi yow am nga difficulté mais yow ki nekk difficulté moo am avantage sax génne ne xool leen génne Sénégal dem télé ne leen xool leen ni ma ni ma nekkee difficulté su boobaa ñun ay expert lañ ñu débattre loolu du problème. am na ay directeur am na ay manager am na ay superviseur am na ay assistant ñëpp la daal ñëpp la qui était en règle qui ñoo xam ne dañ leen débauché ci yenn structure indi leen ba fii am na ñoo xam ne dañoo démissionné woon ñëw fii démissionné ñu woowaat leen ñu ñëwaat fii ñu bëgg leen teg lii dañuy continuer suñu plan d'action jamono ji suñu secretaire général ak ñenn euh, délégué yi ñu ngi fële ARTP ak ñoom ñi suñu ñëwee ñu jël ak plan définir un plan d'action boo xam ne dañ koy dérouler bañu ñu ñu ci dara parce que tamit ku ñu soo gisee réaction ñi nga xam ne li ñu dund sonn na plusieurs années ñi ngi accumulé lu bare bare bare lii du coono yu benn fan de ay at la coono yu at la moo tax ñi ñi toll fii mu jaral leen lii musuñ génn télé mais nag dafa jot pour ñu wan wax ak le peuple sénégalais li ñuy dund parce que dañu sonn amul kenn ku ñu mën a xoxotal gis nga sa xoxotal yooyu wallahi asim ragaluñ ko dinañ ko xeex ba mu jeex nous disons également au DG ici c'est Sénégal ici c'est Sénégal De la même manière que nous, frappe, nous disons France dégage, aujourd'hui nous allons dire o et fort Soudan dégage. Soudan dégage. Soudan dégage. Parce que ici c'est Sénégal. Donc ci tenk rek euh, ñun waa FRAPP tey ñoo fi ñëwoon nekk ci wetu suñu mbokk yi nga xamante ne euh, ñoo ngi doon liggéey ci boîte bi ñuy woowee Expresso Expresso nag nekk benn boîte bi nga xamante ne ak ay soudanais ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiite mais jiite boobu noonu li ñu fa gis rek dañoo xëy un bon jour rek ñu ne dañu daal di dàq cinquante pères et mères et soutien de famille ñu jàpp ne ko loolu nag du dëgg du yoon ñu gis ni que maanaam méthode boobu noonu ñun luñ ci gis mooy que maanaam méthode vaillatorie la mais c'est très normal bu fekkente ne tey ci Sénégal dafa mel ni liggéeykat moom dafa tumuraanke fi dafa mel ni euh, ministre maanaam kii ni ma liggéeykat amul ndax à chaque fois maanaam chaque jour mooy ko jëfee yéen a ngi dégg liggéeykat diw dakk nañ ko liggéeykat diw def nañ ko lii ak lii mu daal mel ni daal ñun Sénégal fii liggéeykat amu fi njëriñ moo tey nag loolu ñun luñ koy woowee mooy vaillitori ndax bu fekkente ne tey suñu njiitu réew mi président Macky Sall moom mii nga xamante ne moom moo nekk président de tous les euh, comment dire ci euh, ni ma sénégalais président boobu noonu moom mooy daal di dooleel ñi nga xamante ne entreprise yooyu ñi nga xamante ne dañuy daal di joxe doxandem ñëw fii ci Sénégal di noot suñu askan ñun waa FRAPP ñun waa ci bi ma société civile duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba moo tey nag ñu ñëw tey fii ànd ak ñoom moom président Macky Sall koy wax nu mu def tey ba force de défense et de sécurité yi ñëw encadré nekk fii ci alentour siège yëpp ci buntu siège bii ne moom président Macky nañ ko wax na woowee nii père et mère et soutien de famille ndax nag nooteel bi dafa doy Soudan nag DG bi nga xamante ne moom moo fi nekk luñ koy wax moom fii Sénégal fii Sénégal la fii nekkul Soudan duñu d'accord tey ak suba mu daal di jël ay soutien père et mère soutien de famille mu daal di comme ay citron jékki-jékki rek di baay bàyyi merci beaucoup